waaw mais man damay lancer appel mairie Touba ne ko ñun député en tant que député Laat Seck en tant que député ak xale yu Touba yi pare nañ chaque samedi ñu organiser ko Touba chaque samedi boo xam weer wu nekk samedi bu jot ñu organiser ko première samedi ci mois bi ñu organiser ko taxawu ko fexe ba dëkk bi dëkk bi dëkkaan yi ba parce que dëkk bi na nga xam ne gox yëpp ñu ngi bale chaque alxamis chaque bu ñu balee chaque alxamis chaque samedi ñun ñu jóg wër dëkk bi dajale mbalit mi tonn ji ko tuuri ko. loolu ñun pare nañ pour def ko te yi lañ ciy déglu bu ñu joxee position yi rek ñu def ko wax naa ko biig mu ne pare na pour ànd ko ak ñun ñun pare nañ pour taxawu ko ba nga xam ne chaque euh, premier chaque première samedi bi jiitu ci weer wi ñu def ko loolu lansement la boo xam ne pare nañ te maire wax na ne nañ ko def parce que loolu yitteem la ndax li nga xam ne moom le président dégle te fekk sëriñ bi dégle ko moom loolu waa Touba mënuñ ci ñekk bi ñaan te ñëpp personnellement man damay sama ak mbale ku xam ne ne Touba man maa fi njëkk sos mbale fii ci Touba booba kër sëñ Saliou laa ko daan defee chaque euh, alxamis dama ko daan def Abdoulaye Diop mii ci ñi ko daan def ci la bokk jamono jooju booba euh, jamono sëñ Saliou la ñuy jóg di ko def chaque alxamis ak di ko lay pep mi dem ci ci Xelkom euh, sëñ Saliou joxoon ñu digal jamono maa ngi fàttali Issa Mbaye Samb yàlla na ko yàlla yërëm yokki leeram taas ci barkeem moom lañ ko daan àndal kon lu yàgg laa la wax kon nag tey man jëlaat naa sama engagement pour àndaat ko ak yéen xaa euh, dama leen di wax Abdou Lahad yéen ñëpp na ngeen góorgóorluwaat ñu àndaat taxaw chaque samedi weer wi ci jiitu ñu dëkk wër dëkk bi dindi mbalit mi tonni ko al parce que alxames jigéen danañ bale samedi ñun ñu wër tonni ko dëkk bi gën a set gën a mucc ay xanaa dañuy wax rek foofu ministre bi nga xam ne moo yor lool mu jàpp ci taxawuñu ci ba gën ñoo kii parce que bul fàtte ne Touba. fi ñuy tonni def mbalit mi presque àgg na di lancé waale ministre bi ne ko nañ ñu dimbale ñu intégré ko gaaw parce que tey foofu di togg mbalit mën a jël juróomi téeméeri nit wala lu ko ëpp loolu intere la pour Touba intérêt la pour xale mi ngi ci kàddu Ballooñ presque pare na waaw loolu demoon nañ fa visite bu yàggul kon ñi ngi ñaan pare équipement yi ñëw nañ oto yi ñëw nañ lépp pare na kon ñi ngi ñaan ñu daal di koy intégré ñu mën a jël suñu mbalit di ko yóbbu foofu parce que xam nañ ne foofu lu am solo la pour Touba ndax ndaw ñu bari mën nañ fa liggéey mais président de la République daf wax ne bu ngeen politiquer ba politique jeex dem ngeen liggéey lool lañu ñu président de la digal te loolu moo di yoon def nañu bu politique du du du métier loolu la ñu jàngal parce que moom président de la République dafa yor ay tool di bay ñu nit ñu am fayday bu ñu politiquer ba politique jeex ñu dem ci suñuy tool dem liggéey ñu ne liggéey ak jaamu yàlla loolu la ñu sëñ Tuubaa digal mu ñaa ñun ci loolu lañ ne mais nag du caagi ne dañu jóg lu ñu neex wax lu ñu neex def amuñu benn affaire boo xam ne lu jëm ci politique la boo ko la xam ne nekkuñu ca mais nag comme élection passée na très fort sax dama ci profité di ñaan Sénégal ñeneen nañu def dialogue mais dialogue bi nañ ci préparer dindi chaque euh, at ak genn wàll bu nekk ay élection parce que problème la ci réew mi économie réew économie réew mi munta am munta am tant que loolu jógewu fi ñu jëlee fi chaque un an et yu ne ñu def élection nañu def année électorale nga dañuy wax ne cinq ans yu ne am nañ benn eh, benn année boo xam ne ci la ñuy def électorale cinq ans yu ne ñu def ci électorale nga xam ne bu ñu xasee def élection nit ñi dem liggéey mais mënuñu comprendre chaque jour ñu jóg. pour euh, war a liggéey nekk ci ay ay élection di préparer élection di préparer élection loolu ba kañ ñenn ñi nga xam ne sax ay xurdab lañ nga xam ne duñ niti dara ñoo xam ne xas nit ñi saaga nit ñi mooy seen yitte dañu gis ne chaque jour rek ñi ngi ci ñi ngi ci réseaux sociaux yi xam nga président de la République di def direct euh, discours de nation sénégalais yi bëgg koo déglu war koo déglu war a xam war a xam lan la président de la République di wax addina bi war koo xam muy jigéen muy góor muy mag muy ndaw yi war a xam li président di wax lan moo leen ci engagé jigéen ñi war a xam moo leen ci engagé góor ñi war a xam lan moo leen ci engagé benn waay jël benn télé jël ko di ca wax lu ko neex yoo xam ne day yàq ak di jaxase askan wi ak di kàcc yoo xam ne dara du ca dëgg koo xam ne man bis bi ma ko bàyyee mooy bis bi mu ne député yi jox nañ leen ku ne 10 millions ak terrain man ma daw di jëli sama 10 millions fekkuma ko fa muy ay kàcc nag loolu rek mooy Sonko kàcc rek lay def lee rek ni ko xale yi waxe di wax Euh, dégg naa président de la République wax ci def nañ fi ay yokku nañ gendarmerie euh, yokk bu am solo mais nag des na en réalité il faut ñuy waxante dëgg euh, parce que tey boo demee tey bu ñu ne la démb bërki démb toog nañ ba vingt heures vingt heures trente vingt deux heures moyen de minuit ñu ne am na ay nit yu engagé bitik ak seen i yi loolu man ci film laa ko xamee woon mais xaw ma ko woon lu mën a nekk la damay tooñ sama waa kër léegi leneen fu minuit jot fu fu 18 heures jot rek tëjal leen buntu kër bi gaaw te bu kenn dugg te xamuleen leen lan la loolu wóorul loolu nag ñi ngi ñaan président de la République ñaan ministre force des armées ministre intérieur ñu gën ñoo renforcer problème mu sécurité bi parce que problème la ci dëkk bi waxoon naa leen ne fii ak 5 ans mu sécurité dina problème ci dëkk bi danañu causer te des na fii ak 5 ci kanamaat. da gis beneen problème bu gën a yees boobu parce que lu tax mooy Touba dañoo am problème ay xale yu bari yoo xam ne ñoo génn seeni kër nekk ci mbedd yi te lijjanti leen te ñooñu dañ leen a war a lijjanti ñu delluwaat ci kër yi ak xale yu bari yoo xam ne amuñu métier wala bu ñu amee métier amuñu lu ñu def yooyu it problème boobu mooy Touba ñun ñoo war a góorgóorlu en tant que Touba fexe nan la ñuy def ba créer fii ay usines créer fi yeneen comme ni ñu créer université Cheikh Amadou Bamba ñu créer ay usines yoo xam ne ak yeneen yoo xam ne xale yi mën nañ fa liggéey mais mënuñu bàyyi xale yi rek ci mbedd yi loolu mënut a nekk parce que Touba usine amu fi dara amu fi jafe la te it ay formation yenn amu fi ministre formation professionnelle mi ngi former nit ñi mais yenn financement yi amul DER def na ci ay jéego mais des na